maa ngi tudd Saliou Dione dëkk fii ci Ndaam di coordonnateur mouvement bu ñu wax Magsot mouvement anti gouvernance sombre et tortueuse euh, ñu fas yéene jàppale euh, le candidat au présidentiel monsieur Ousmane Sonko. waaw objectif rencontre bi moo doon lancer mouvement bi muy Magsot waaye aussi. Euh, fësal suñu jàppale le président Ousmane Sonko ngir fal ko aux élections présidentielles de 2019 le 24 février beneen bi mooy euh, ku ne xam na ne ndaam am na ay euh, responsable yoo xam ne APR la ñu bokk am lu ñu fi doon yëngu ñu nga xam ne ñoom lañ yëngu woon jëm ci ñoom yëpp décroché nañ leen indi leen ci fii nga xam ne mooy mouvement Magal Sope bi fas yéene jàppale le président Ousmane Sonko présidentiel hmm. Euh, tey daal moom loolu moo doon euh, objectif bi nga xam ni euh, moo doon objectifu rencontre tey bi donc décrocher ay nit yoo xam ne dañu leen jëlee APR indi leen ci suñu mouvement waaye aussi lancer waale suñu mouvement fas yéene jàppale président Ousmane Sonko. waaw yaakaar na toll na ci juróom-ñaari mbootaay yoo xam ni au minimum le minimum juróom-ñaari mbootaay yoo xam ni joxoon nañ seen accord pour jàppale président Macky Sall ndaam gii nga xam ni fi lañ nekk ñoom ñëpp fi lañ dëkk kenn ku ci nekk. tey teew nga fi indaale sa mbooloo ñu fas yéene jàppale président Ousmane Sonko. waaw xam naa nag euh, ay mbootaay la waaw waaw euh, jeunes yi nga gis ñu organiser yëpp Mamor Fall mi sëñ Jili Dieng euh, sëñ Pape Sam sëñ Galas Aaj Adama Fall ñoom ñëpp appel lañ nekkoon Saliou Dione man mi di wax ak yéen. amoon na accord ak ñoom ba commencé lancer activités yi déjà 17 mbootaay yi nga xam ne yëpp euh, dëggoo woon nañoo ñoom ngir ñu sóobu ci APR ba commencé woon liggéey bi ñoom ñëpp arrêté nañ 10 euh, associations yi nga xam ne dëggoo woon nañoo ñoom ngir liggéey ci biir APR aussi ñoom ñëpp démissionné nañ euh, dugg ci mouvement bi fas yéene jàppale le président Ousmane Sonko. waaw xam nga politique dañuy wax ni la politique en politique on ne on ne prête pas kenn ci leble. mais ñun dañu tegoon politique ci cadre boo xam ni dépassé na cadre euh, naxante à la manière machiavélique euh, euh, Machiavel donc ñu ni nañu ñëw le suñu gox jàppale ñi nga xam ne ñu dëkk suñu gox mais vraiment ay naxante ak i tegante dil bon jomb nañ ko suñ diggante suñu ay dëkkandoo jomb nañ ko ci ñoo xam ne sëq nañ ñoom ko lëre loolu moo doon moo doon mbir mi bu ñu demee nag ba xam ni ay nax am na ci ak ay ay ay déception ak euh, vraiment yoo xam ne bon duñ ko expliquer vraiment dañuy préférer xool koo xam ne ay loxoom set na xool koo xam ne ku ne xam ne jaar-jaaram amul benn benn benn lënt boo xam ne am na ci gestion amul lenn lu ko mën a reprocher ñu ànd moom parce que comme dañoo gis ay tortuosité dañuy préférer ñëw ci xam ne set na wecc ñu ànd ak moom liggéey. waaw mais man xam nga du ma tudd ay tur bon là moom je ne le ferai pas quoi man du ma ay tudd ay tur yooyu moom nekkuma ci li ma amal importance mooy ñi nga xam ne mobiliser wu nañ fas yéene jàpp mouvement bi mu dund fas yéene àgg foo xam ne fu kayo njort lay doon jàppale président Ousmane Sonko mu falu ñoon loolu moo ñu intéressé quoi mais le passé moom du ñu dellusiwaat ci tur ay tudd ay tur parce que ñooñu taxuñ ñoo jóg on a conjugué les relations au passé euh, mouvement bi à peine trois mois trois mois ci la toll bi mu juddoog léegi donc euh, suñu vision moom comme on l'a dit euh, dañu proposé woon le président Macky Sall dafa proposé woon une gouvernance sobre et vertueuse li ñu jàngat ñun mooy une gouvernance sombre et tortueuse vous savez on a défini même euh, ah maa ngi wax français ok euh, dañu définir sax politique gu bilan wu président Macky Sall ci quelques mots benn bi répression la d'abord corruption répression emprisonnement Euh, trahison intimidation et nébuleuse loolu li ñu koy tënkee mooy corruption euh, ñi mu jàppoon ñëpp ne mën nañu nekk ay candidat potentiel candidat adversaire lañu corrompre na leen bañ dem ci wetam pratiquement excepté quelques-uns mooy ñu borom loxoy set yi ñi des yëpp corrompre ñoo ngi ci wetam te doon nañ giñ au nom de tous les cinq duñu mas a ànd ak moom kon bu ñu demee rek am na lu fa jaar dañu leen corrompre corruption moom c'est de mise pour lui répression il a réprimé des étudiants ba mort d'homme am ci il a réprimé des enseignants toroxal leen il a réprimé des leaders politiques yoo xam ne ils sont présidentiables xam nañ leen jaruñu tudd ay tur il a réprimé des chefs religieux donc répression bi leer na emprisonnement la même chose les principaux acteurs politiques yi nga xam ne jaaxle woon nañ ñun tiitoon nañu mën nañ mën na leen euh, mën nañ koo daaneel tëj na leen emprisonnement tëj na leen ñoom ñëpp pratiquement ñenn ñi nga xam ne nag génn nañ bees mun leen a tëj bon c'est autre chose dinañ ñëw après kon emprisonnement moom c' est encore la règle pour lui euh, beneen bi mooy trahison il avait promis cinq ans diggoon nañu cinq ans lay def yokk ko def juróom-ñaari at diggoon nañu vingt cinq ministre romb na quatre-vingts ministres diggoon nañu gouvernance sobre et vertueuse ku ne xam na li fi xew bon la famille d' abord ensuite le partie la patrie c' après kon trahison mun a passé loolu intimidation. ñi nga xam ne mun leen tëj mi leen di intimider ci am na fu mu jëm ak ñoom toujours l' intimidation gis nañ euh, Ousmane Sonko à Matam finalement dafa mujj gelé meeting bu fa waroon def donc intimidation bi yaatu na nébuleuse voilà boobu nag mooy bi gën a doy waar dafa gérer réew mi ci gérer boo xam ni lépp la brouillé dara leerul amul lenn loo xam ne leer na te malheureusement aussi bari na ñoo xam ni ay experts lañ ay ja ay ay ay boromi xam-xam lañ. jël leen yóbbu ci wetam ba daanaka information war a génn sama ko génn quelques rares exceptions ngay gis ñu génn di dénoncer gestion bonne bi muy pétrole bi muy gaz bi muy zircon bi muy phosphate amul lenn loo xam leer donc tout est nébuleux. d'accord Sall léegi fii Ndam gox a mag ci Touba ci la jafe-jafe quartier bi waaw quartier bi li muy dund ci jafe-jafe d'abord tali bi booy wax nañ ko sànq ñëpp ku intervenir wax nga ko raana boo xam ne vraiment ça ne beneen bi. Euh, ndaam lëndëm na vraiment lëndëm na lëndëm na trop trop trop trop éclairage public dara chômage bi pratiquement aucun investissement benn lenn loo xam ne état ko créé loo xam ne mën nañ cee gis benn jeune mën ci liggéey amul amul dara benn benn benn euh, investissement boo xam ne état ko def wala benn création boo xam ne ndaw ñi mën nañ cee liggéey donc chômage bi moom vraiment c'est la règle ici liggéey mooy mooy exception bi sécurité aussi la même chose xam nga quartier bu ne amutu yoon Euh, lëndëm na mais mun taam sécurité sécurité aussi dafa manque laa santé mais xoolal dëkk bu toll ni Ndam mënuñu am sax poste de santé ay junni élèves ñooy jàng si fii donc je crois que loolu aussi c' est un besoin criard donc yaakaar naa ne daal ndaam moom bu ñuy cité li nga xam ne ay jafe-jafem la vraiment mën na mën na yaatu lool. waa xam nga li ñuy wax rek Sénégal réew mi yaram mu mag la fuñ ni mooy métti rek mu ni moo gën a métti foo laal rek da nga naan moo gën a doy waar secteur bu dox amul tous lee nag tous les secteurs sont noyés amul benn secteur boo xam tey mën nga Sénégal fii kat mi ngi fi avancé éducation dañu dem bay euh, intimider les enseignants di leen jox ay mise en demeure bon yooyu xam nga yu doy waar la yoo xam ni cim réew.